Bienvenue à Dakar Sénégal bienvenue chez Dibiteri Lomboté kër Cheikh Abdallah Fall numéro un lañ ko duppee ci képp kuy jaay tey lakk yàpp fii ci Dakar mani yàpp bu nooy nepp ñor xomb ba ca yax ba moutarde bi wër ko sauce vert bi romb ko soble bi sànneeku ca kaw kaani gi ci wet gi xet gay gilli mburu mi tàng jër xam nga ni dibi bu neexee nii ci la mbote nga ko mën a amee waaye yéen ñam ngeen yàpp saaf bi ñi ko ñam ñëpp nee na nañu yàpp saafu la ak bu tabaski amul différence ey eh, gaay ñi mbote mbote lu bari nañu lool waaye dibiteri la mbote ñaar la fii ci Dakar jàppal am nañu dibiteri la mbote kër Cheikh Abdallah Fall chez Papis bu Serigne Sall Médina rue 11 angle 8 téléphone 77 036 50 88 ou 33 822 13 88 am nañu aussi Mamel Kër Jaraaf chez Papis bu Serigne Saliou dibiteri Cheikh Abdallah Fall téléphone 77 036 50 88 ou 33 865 31 09 alors chers clients précisez bien ci zone bi ngeen nekk ngir ñu mën leen indil seen livraison baa ngi noonu ndeysaan baa ngi noonu ngay gis ñaa bu ndaw ngi noonu ndeysaan mu ngi dugaat ci biir.

waa mais Khadim Siba génnee si baa bi. noo ñëwee baay. waaw di bëgg rek. ah kon ndam rek. ah waaw. noo waajee sa mbër. instant yii pare physiquement mentalement moralement. dof bi moom lañ am tey. kooku lu dof yaa ngi gunaas ñoo dëkk ci ñax mi di lekk ci ñax mi. loolu nga wax. di la yow. ñaar bi boo ko doon yóbbu tey loo koy conseillé. xeex hmm. waaw toog ci tànk yi biroo bu xeex ak Zarko. incha allah waaw dóor ko dóor yu baax jàpp ko daal. wàllum supporter wàllum mobilisation. waaw wàllu mobilisation moom yow gis nga gars yi ñëwaguñ sax moom la ñu naraw. instant yii gars yi ñoo fanaan eh, fii nga fanaan. waaw waaw noonu la demee. Hmm? noonu la demee waaw. nga wóor yaay borom gunaas. ay jë. waaw xale bi nga xam ne bu doon seetaan bi muy bëre ba dem ba war a bëre. voilà mën na bëre de. waaye waxuñu loolu kii xam nga ko bu baax yow kenn du la ko wax gars yi xamuñu ko xam nga kii. waaw am na lu ma xam ci moom. voilà li li nëbbu. Ah. yàlla na ko suñu borom feeñal tey li nëbbu si moom yàlla na ko suñu borom feeñal tey. kon sax dal na nii nii nii luy loolu loolu gisoo nu may doxee xanaa damay lekk di naan te damay daan nekk suñu borom. amoo pression waaye amoo pression xale laa yor. amee tos. waaw waaw jéem. daa mel da ngaa tiit de. tiit waaw gars yi dama la gars yi demee nii yow. non da nga concentré ou quoi. da nga concentré am looy xool. am looy xool am looy ëpp. fii wala grand yow. fépp man pare naa pour fépp maam. Ah. Serigne Touba Mbacké. Ah, xalooy conseil tey ñaan. ñaan dal rek. Hmm. jox ko cër. parce que Serigne Touba Mbacke. jox ko cër jëlul moom. ñoom ñaar am nañu seet. arbitre bi parce que Serigne Touba Mbacke. si bëre lay jeexee wala si xeex. si bëre lay jeexee. ah parce que Serigne Touba Mbacke. ñaar dina bëre. wala Serigne Touba Mbacke ñaar da ngay bëre moom ko. ah, ah? daal Serigne Fallou Mbacke. Ah, loolu nga gis. Zarko dina am lu ko bett. ah xaaral loolu nga wax. parce que Serigne Touba. Ah. mbaa mbaar Gambi. nee na mooy borom Gambi de. ñun kuy yendu kasu may bi ñu daan. kuy yendu kasu may. borom boobu muy toog bu ko déggee di nga xam. toog seen ah. sargo waaw jabaram bu muy toog jal bu muy yaakaar sëyam tasagul mais tos lay wax ni eh mooy biir Gàmbi ñun Gàmbi lañ nekk ñun eh, am na jal bu muy topp takko kooku sëyam tasagul biir Gàmbi lu leer laa la wax mais ñun dem Zarko lañ ko gis Zarko dem si guddi mi ngi live TikTok déggoo lu ma la wax xanaa moom amul stress jal bu muy yaakaar pour takko ko Zarko yow jal bi nga yaakaar pour takko mooy biir Gàmbi sëyam tasagul mais wuñ ko baat muy bakaw diggante loolu biir bakaw waaw <laughs> loolu la demee nag waaw di ko sof ñaamu ndaw mu mhm. nekk koo xam ne champion la mhm. au daf leen di wax benn baat nekk guma mbër bari laa bëgg a doon da si bàyyi xel nekk guma mbër mbër laa bëgg a doon mhm. da leen bàyyi xel a baax waaw because moo ne nobody don't tell you nothing nee na kenn du ko wax dara moom xam lu mu war a bëree tey xam na lu mu war a bëree incha allah ñun amul len len len len ñu koy ñaanal bu fan ak cat lañ koy ñaan mais xa dof bi la am tey dof non dofut dofut non non dofut Zarko dofut noonu la mel noonu lay def pour wan ay supporters am que waaw maa ngi cool. koo xamante ne heure buy bëre même policiers yi sax ñoom du ñu am jàmm. waaw mais doo dégg noonu lay def pour ay mbokk ne maa ngi cool fekk moom coolut. projet benn de. ñu doon bëreel ak ñun. loolu nga gis nekkul benn te incha allahu rabbi after timis. Zarko mi bëre ak Diène Kairé. Diène Kairé ak ñaamu ndaw nga bokkul bokkul. loo koy conseillé tey moom Ndiamou Ndaw. ma dara lu ma koy wax ah. ñun waa Gambia amuñu dara luñu koy wax Ngoz yàgg nañu bëgg waaw huit ans daanu woo. macha allah ñuy ñaan yàlla. mais bëri dóor la ñu wax. bëri dóor la wax always mu ñuy defal li ñu bëgg kenn du ko conseillé amul dara luñu koy wax ñun leen rek lañ koy ñaanal mooy cat ak gudd fan parce que xam nañ ne bu guddee fan moom incha allahu rabbi. dina ah, téye roi des arènes. bëre lay jeexee ko mbër bëgg a agressé xanaa. respecté wu ñu benn yoon te incha allahu rabi. non ko xam-xam ni carrément moom noonu lañ koy def tey lu ko mbër mësul def tey lañ koy def Zarko incha allahu rabi bu fekkee ni yàlla maye. Hmm. nangu ko incha allahu rabi lu ko mbër mësul def lañ koy def tey. mais c'est la jeunesse contre l'ex. dinañ ko jox li mu moom. Uh-huh. sumba gaynde bi na béer bi fecce bi ruube bi dinañ ko jox loolu di ko sof loolu moom moo ko moom. mais sawu mbaam bi mbaa nañ koy xaar. xam nga say gis waaw. mu ngeen yóbbu mu ngeen koy xëpp xam nga saw jësit waaw Gambia laa ko jëlee ba fii boobu day yóbbaale sa der saw jësit day yóbbaale sa der moom ngeen ko bëgg a xëpp moom wallaahi azim bro maay jégalu si waat bi sax waaye dinañ ko def tey lu ko mbër musul def man maa la wax loolu si histoire rendez yaa fi ñëw te dañu toppaat ay ca léegi léegi bari na ñu doon jël yóbbu. mais nee na nee na ñu bàyyi ko fi. nee na ñu bàyyi ko fi. bari na si mooy dugg. waaw loolu lañ bëggoon def. Ah, bàyyi si booy baax baax baax nañ booy continué kër gi waaw dafa def ay preuve. waaw nangu ko ko. xam ne ñu doon bëre xale bi bokkuñu de. Zarko mbër bu mag la. mais ñu doon bëreel ak xale bi bokkuñu de. Zarko am na fit. mais ñu doon bëreel xale bi doon bëreel xale bi bokkul de. Zarko am na sañ-sañ. ñu doon bëreel. waaw xale bi bokkuñu de. Zarko am na doole. ñu doon bëreel. xale bi bokkuñu de. Zarko mën na xeex. ñu doon bëreel. ak xale bi bokkuñu de. yaa ngi may dégg coach loolu la andi tey mais yaa ngi may dégg maa lay dégg bu baax coach xam nga laa bëgg waaw ñu tënk ko rek te xam ne moom c'est un champion champion dañ ko koy nangul. Mm-hmm. mais ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu jàmm. Mm-hmm. parce que waa Guédiawaye. Mm-hmm. waaw ñu génn ñëw jàppale booy bi ndeysaan te xam ne ku bëgg la muy def la ci avenir la ci avenir la bokk ku jël six millions teg ko table jënd vingt hmm, te boo yaa ngi nii wut te billet bi la ñu ko loolu te billet ba léegi mënul doy xam la vingt deux bolok loolu bëri de xam kon nag mu leen ne combat am na fu ñu ko teg na fu ñu ko teg xamuñu hmm. te dañuy lambi te loolu leen di andi tey. dañuy dem lambi. loolu leen di andi tey. yàlla yàlla def jàmm. ay millions ah. ci ñu poste te mënuñoo am tëj. yàlla yàlla def jàmm. Wait, I don't know why.